ndax tey fépp fu ci fuñ ci toll ginnaaw yàlla moo ma fuñ ci toll tey ginnaaw yàlla moo moo ñu dooleel tey bañ agsi fii ñu man a agsi tey moo tax ñu créé mouvement d'organisation pour servir Touba fas yéene rassembler jeunesse bépp góor ak jigéen mag ak ndaw rawatina mouvement yi ak ONG yi ak ak ak maire yi ak ak daayira yi ak mbootaay yi lépp parce que aussi Touba bu mucc ay tey ginnaaw yàlla mën nañoo wax ne tey mouvement yi la ak ONG yi ak euh, daayira yi ak mbo ak mbootaay yi kon ñooñu tey ñu jar a jàppale lañ ñu jar a waxtaanal lañ ñu jar a lëkkaloo lañ moo tax tey yàlla alhamdulilah ba ma ñëpp yàlla jox ba ma ñëpp ba yàlla def ñëpp jox ma bopp tey xam ne tey euh, Touba jëm kanam ñu ci seen loxo ñu booti ñëpp ànd ak sama ginnaaw Fatou àll si àll si la teg ma loxo li fas yéene ànd ngir développé Touba li ñu bëgg Touba mooy Touba développé évoluer comme ni nga xam ne noonu la dëkk yëpp évoluer Touba ëpp liggéey noonu ndax tey boo boo leen xoolee mbooleem euh, euh, réew dëkk yëpp day am ay ay ay barab yoo xam ne ay société la ay société yoo xam ne day day day recruter jeune bi di leen bi di leen jël di leen employé comme emploi di leen fay loolu day wàññi chômage te loolu amul benn amul Touba ndax ñu yëpp dañoo boycotté Touba loolu bés fas yéene nañ xeex ngir di leen recevoir di leen dalal di leen tatagal ci biir Touba ñëw fi di liggéey ngir maanaam loolu day day day suq day suqali dëkk bi mais aussi day su day suqali day suqali aussi maanaam euh, peuple bi jumtuwaay dafay sooxe bu baax a baax et puis barab nga xam ne bari na Sénégal bari na Sénégal yoo xam Dakar ak yeneen régions yi yoo xam ne dañuy financé jeunes yi di gunge góor ñi ak jigéen ñi muy ab ak ak lu mel ni Ampix Ampix euh, Prodoc yu mel noonu APEX yi yu mel noonu FES bi naata Samba Mbacke jiite mi nga xam ne moom la ñu tudde woon tey jour bi yooyu benn amu ci Touba te yooyu dafa jaaru tey mu am ci biir Touba ngir mën a suqale gunge jeune bi parce que mën nañoo wax ne tey deuxième ville du Sénégal te moo di Touba loolu moo tax mouvement bi daal mouvement bi ala kulli xaalin day jima ci xol lépp lo xamne lu bax lu mën sukkal suqali adam aadama mën a suqali dund doomu aadama mën koo maanaam ñu fexe lu am ci bi dëkk bi mais aussi lépp lo xamne également dafa am dafa dafa dafa nekk ci bi dëkk bi wuru fee jariñ dokku ci ñu ko génn ci dëkk bi lépp lo xamne man aussi war naa mën nekk ci dëkk bi wara servir wara def fonction fonction wara servir de ki servir yu dara dëkk bi lu melni commune bi ñu fexe ba lolu servir servir dëkk bi parce que Touba mi ngi may sétane ni ñu dugg naa ci mbooleem gox gi ak gox goxane Touba tay bu doon ab jimmu ji taxaw ma wax ne jimmu ji lu mu reey reey rëy tap bu doon métti sax ci jimmu bu meuna sori xamna fa tay waxtaan na mbooleem gox ak gox goxane te tay ku gis manam di daje tay ci salle bi te xamni li lii du caaxaan lii du caaxaan la xam nga doomu aadama bala soxla dara day rek nit bu rek bu xibé du am dara dara xel nek ci dara lu lek lu lek xiif lañ gën def ñom seen jàng da ngay gis ñoo xam ne seen dépense toute la journée benn mëtul sax 1500 te 1500 yi ni ko toujours lañ koy am. seen def lu toll ak famille toll na famille cinq cent seen seen ndékki trois cent francs lay seen añ boo ko lépp mat tolloog maanaam mille tolloog maanaam maanaam tey maanaam ay six cent sept cent seen reer dañ koy takkale parfois ñu togg sundi parfois ñu togg ruy parfois dañuy fan dañ ko kii moo tax maanaam euh, sancaan yi sonn nañ lool wax dëgg yàlla ñëpp a waaye sancaan yi dañ cee rawati soxla soxla nañ ndox soxal nañ courant soxal nañ yu bare bare waaye xiif aussi mooy la gën a sonal parce que ñoom boo toggee ñoom boo xoolee seen xar kanam xam ne ñii wax dëgg yàlla ñu sonn lañ ci naan aussi ñu yeeyu jàppale lañ ñun amuñu allié ci cadre politique mais suñu alliance ci cadre cadre principe la aju suñu alliance ci cadre principe la aju képp koo xam ne maanaam pare nga ngir gunge ñu ci suñu objectif suñu ambition ñun pare nañ ngir jox la loxo jàppale la suñu képp laay kàttan ba nga ne jàppale na jàppale nañ la mais également moom dañ koy sant bu président de la république li ñu koy wax mooy euh, ñu ngi koy sant di ko gërëm ca xam ne maanaam tali yi mu dugal Touba depuis 2012 ba léegi bépp tali bu am fii Touba mi ngi fi hôpital bii muy sampal gis nañ ko bu mag def ci centaine de milliards centaine de milliards indi fi ay opé ay ay ay ay ay ay euh, def ay ay brigade de ngir renforcer sécurité bi te loolu sëriñ bi da koo ñaanoon mu jëm ci biir ñooñu di ko wax ne ko na gën a gestuwaat askanu Touba askanu Sénégal gépp mais nag ñu koy tàmbalee ci fii ndax al aqrab wala li ñu salaam jàngal na gën a gestuwaat peuple Touba gën a bàyyiwaat xel ñi nga xam ne ñu ci biir gox yi ak gox-goxaan loolu nag li koy dim li koy li tax mu a nekk mooy mu bàyyi leen xel jéem a xool lépp loo xam ne war naa am ci dëkk bi te amu fi mu indi ko ci dëkk bi te yaakaar na loolu njëriñ loo xam ne dana law bàgg ci dëkk bi